maaleykum man maa ngi tudd Abdoulaye Badji ma nekk fi donc journaliste en même temps donc euh, chef du bureau régional bu APS au niveau de Diourbel waaw question bu nga wax nii am na solo parce que wàll télévision boo xoolee boo xool télévision léegi dafa am place bu baax ci wàll euh, information parce que télévision à la différence donc euh, de la presse écrite télévision day génne image te image dafa doon loo xam ne lu sensible la parce que image bi moom comme on rek une image di dix vaut mille mots donc euh, côté boobu moom am na ci rôle bu central bu muy joué ci wàll euh, journalisme moo ko jëlee donc si aspect boobu euh, moo tax quelque part donc boo xoolee tey dañu nekk ci paysage boo xam ni audiovisuel bu xaw a par rapport aux réseaux sociaux avant il y avait la télé boo xam ne moo fi nekkoon en tant que médium mais avec les réseaux sociaux pratiquement donc l'image a été amplifiée de sorte que euh, n'importe qui tey mun na am accès à des images filmées à partir de son portable en même temps mu diffuser ko dans les réseaux sociaux commenter ko comme il veut donc euh, c'est donc euh, benn instrument boo xam ni c'est c'est devenu éparse nit ñi dañuy diffuser di n'importe quoi n'est-ce pas te ñun ñi en tant que journaliste dafa dem ba finalement donc euh, ça nous pose problème parce que n'importe qui il suffit nga am benn appareil nga filmer dugal commenter euh, parfois on ne sait plus qui journaliste qui ne l'est pas à partir de ces appareils là léeg-léeg dañuy couvrir les mêmes activités le journaliste dañu couvrir activité par exemple comme marche euh, une personne boo xam ni am na appareil mu ñëw filmer dugal donc euh, pratiquement donc vous au même niveau pour traiter un même événement mais la différence en est que le journaliste dafay traiter de façon professionnelle ce qui n'est pas le cas un amateur c'est là où donc euh, je dirais que loolu moo ñu xaw a préoccupé mais du côté des journalistes il faut dire que am na des organes de régulation yu fi nekk parce que les journalistes aussi seen métier bi quand même c'est euh, par beaucoup de n'est-ce l'éthique et la déontologie mu ngi fii notamment la déontologie du métier c'est ce qui fait que donc ñun on a la chance tout ce que nous on diffuse et puis la formation bu ñu am nii ça nous permet donc ñu euh, génne lu bëri loo xam ni baaxu ci dañ koy génnee ce qui n'est pas le cas donc pour les zones ñoo xam ni dañuy filmer dugal euh, comme dugal les images quoi. les programmes télé c'est vrai que bon boo xoolee la télé. Euh, quelque part am na boole boo xam ni divertissement la c'est vrai que la télé boo jëlee le journalisme di nga informer di nga am partie boo xam ni divertissement la mais léegi boo xoolee ba xool euh, pratiquement même dans la revue de presse revue de presse bi ñu koy defee léegi dafa am benn forme de théâtralisation day dem ba finalement day noyer même euh, le côté sérieux de l'information bon loolu quand dañ koy xaw a déplorer parce que léegi euh, information dañ ko banaliser te parce que finalement même quand c'est sérieux la manière nu ñu koy diffuser parfois euh, manque de sérieux day xaw a manqué trop de sérieux d'information c'est quelque chose de de très sensible euh, loo xam ni euh, il faut le juste milieu il faut de pas que la théâtralisation théâtralisation dem ba nar a jël le sur l'aspect solennel de l'information moo tax quelque part Euh, les journalistes war nañu ñëwaat ci les fondamentaux du métier waaw les fondamentaux du métier mooy être très rigoureux dans le traitement de l'information en respectant donc les styles mooy euh, la rédaction donc euh, di ni mu tudd la rédaction donc des papiers parce que dafa am des styles yoo xam ne mu ngi fii mënuñ ko réinventer n'est-ce pas waaw des styles yoo xam ne ay commentaires la am na styles yoo xam ni donc ay biais la. Euh, y a des reportages donc tout ça c'est des styles yoo xam ne dañ ko war a respecter mais de plus en plus léeg-léeg le manque de formation et puis parfois la jeunesse parfois des journalistes parfois day feeñ sur lu euh, ñu traiter parfois les les les styles rédactionnels la ciy feeñ de trop de sorte que parfois il y a beaucoup d'amalgame sur euh, les contenus euh, finalement tu ne te retrouves pas ci lu ñuy diffuser quoi. waaw loolu c'est très dangereux euh, moo tax. quelque part le journaliste waroo waroo tomber souvent dans ce piège là parce que yow en tant que journaliste souvent ay nit dañ lay solliciter par ça peut être des hommes politiques te souvent on sait que souvent les hommes politiques dañuy bëgg leen utiliser la presse pour des règlements de compte entre eux donc yow mi journaliste tu dois faire la part des choses nga éviter de tomber dans ce jeu de manipulation yaa ngi dégg il faut éviter de tomber dans ce jeu de manipulation en tant que journaliste il doit être équidistant des chapelles politiques de tout lépp loo xam ni ay querelle la moo tax très souvent si recommandé léeg-léeg nit sax bu ñëwee jël sa média mu attaqué une personne tierce yow war nga mun a jël jël ku muy attaqué maanaam la partie qui accuse ah il faut tout faire nga dee ma jël coller l'autre partie pour mu joxe aussi sa version pour dans le souci d'équilibrer loolu moo lay mën a dimbale nga bañ a tomber dans ce piège là nga xam ni parfois euh, la télévision est utilisée comme moyen de lutte comme un moyen de règlement de compte entre des personnes il faut éviter de tomber dans ce panneau-là. Euh, télévision moom lu ko tax a jóg mooy euh, informer divertir éduquer n'est-ce pas loolu mooy role télévision te les journalistes que nous sommes c'est un médium boo xam ne dañ koy utiliser pour jàllale information donc. Euh, taxawaay télévision mooy taxawaay boo xam ni xam nga parce que ça sert à diffuser des messages donc message bu ñu ti diffuser dans la télévision war d'abord war na am benn sorte d'intérêt public parce que il suffit pas nga ñëw wax lu la neex te amul njëriñ askan bi donc euh, la télévision amoon mon avis doit être d'abord loo xam ni message yu ñu ciy véhiculer war na mu am njëriñ ci population bi war na doon métier euh, message yoo xam ni day participer à l'éveil de conscience n'est-ce pas des messages yoo xam ni day éduquer euh, les jeunes les plus jeunes les enfants des messages yoo xam ni en tout cas day rassembler n'est-ce pas day rassembler une nation donc globalement boo xoolee boo xool la télévision euh, doit être euh, utilisée comme un moyen de euh, maanaam de conciliation euh, de raffermissement donc des relations n'est-ce pas Euh, mu doon un moyen boo xam ni ça permet euh, avec euh, bien sûr des images à la l'appui communiquer n'est-ce pas diffuser des messages mais warul doon loo xam ni dañ koy utiliser comme une sorte de propagande n'est-ce pas loo xam ni c'est pour n'est-ce pas diviser n'est-ce pas des des personnes une arme de guerre vraiment c'est pas ça donc loolu moo loolu tax koo jóg quoi donc euh, c'est un outil quand même qui est fondamental dans le journalisme c'est un médium boo xam ni am na solo euh, en tout cas qui nous permet nest pas en plus n'est-ce pas de euh, de per moom moom mooy permettre à ce que ñi ñi gis au moins avec des images à plus le travail nest pas que tu en train de faire Euh, à la différence de la presse écrite parce que presse écrite y a pas d'image mais boo jëlee la télévision ça permet en plus euh, de vivre le fait au moins de montrer ça de montrer le fait que tu de relater en tant que journaliste donc côté boobu il faut avoir une responsabilité lenn lay woo le sens de responsabilité des journalistes ñi xam ni ils ont un, euh, un médium extrêmement sensible mooy la télévision donc euh, bu ñu koy utiliser tamit nañ ko utiliser en toute responsabilité euh, ñu xam ni donc euh, derrière tout ce qu'ils font ça peut impacter positivement comme négativement les populations c'est là où donc euh, j'appelle les journalistes à ce que ñu redoubler de vigilance à ce qu'ils aillent se former ñu respecter également donc les fondamentaux du métier notamment donc euh, la déontologie boo xam ne day régir suñu profession